te wat kenn mënul laam-laamee ne liggéey bu rëy bu mu def Sénégal bon mais effectivement bon est-ce que duñu xalaataat si infrastructure sportive man waxuma la sax ñu tuddee ko ay des leaders sportive de grands dirigeants mais euh, lu ñuy def actuellement si àdduna bi loolu la ñuy wax naming c'est-à-dire ñu jox benn société euh, ñu jox ko tur bi pour que parce que bon ñëpp xam nañ ne seen euh, Afrique d'une façon générale suñu problème bu gën a rëy si infrastructure sportive mooy entretien bi donc soo defee naming da ngay am moyen yoo xam ne ça te permet gouvernement bi dootul génnee xaalis pour entretenir pour fay gars yi koy liggéey. exactement ñu tuddee ko benn tour entreprise boo xam ne dafay joxe xaalis boobu. dañuy def sponsoring sponsoring pour mën a téye infrastructure sportive xoolal chaque année wala chaque deux ans wala chaque chaque cinq ans ay milliards la ñuy joxe pour defar ay stade pour man loolu moom dañ ko nar a weesu mun nañ xaalis état bi ay république la ñoo xam ne ndóol bi dafa fi bëre am nañu charge yu bëre si santé éducation autre chose xaalis boobu mun nañ ko dugal si loolu pas pour ñu tuddee ko ay kii mun nañ am xaalis bàyyi xaalis état bi quoi ñu utee xaalis leneen en faisant par exemple néew mi